Dakaractu ah, ah Dakaractu maa lay nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu ñi ñiy teewlu yëpp mm-hmm. euh, di rafetlu aussi suñu teewaay si euh, si dialogue tey bi mm-hmm. parce que aussi c'était une urgence mm-hmm. ñu teg première pas bi je pense comme ni ko ñëpp xamee banqaas bi gën a dëgër bi gën a wóor pour que réew mën a tegu ci démocratie mooy euh, justice e dañoo jógee aussi ci passé boo xam ne c'est très récent avec beaucoup beaucoup de cicatrices yoo xam ni wéragul sax et je pense que le président a bien fait d'en faire une priorité que ñu teg ko si table bi waxtaane ko mm-hmm. donc euh, donc loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax mm-hmm. et di ñaan aussi ñu fi jëlee comme euh, travaux yi ñu fi def yëpp li fi génn mm-hmm. réforme yi ñu fi nar a def yëpp aussi après mu doon ay réforme yoo xam si ni moom mooy régler le problème définitivement parce que comme ni ko wax ñun ci li ñuy gën a accentué mooy euh, fi ñuy jaar ñu bañ fa jaaral l'indépendance de la justice ñun peuple bi Euh, dans la généralité loolu mooy nekk souci wu peuple mm-hmm. après xam nga am na yeneen yoo xam si ni mais ñun ci liñ gën a mm-hmm. si des lépp suivre indépendance que on a beau faire les textes signé euh, voté des lois mm-hmm. mais nit yi ko nar a ñoom ñoo war a def quand benn remise en question parce que indépendance les yi bu fekkee tënku nañ ci texte yi problème mën na bañ mais bu fekkee que ni nag euh, ingérence am na rek c'est parce que corruption am am wala nga àtte ci turu euh, ak personne wala ci turu ak parti politique. Hmm. mais boo boo àttee ak sa akulaay taala ak si li nga prêté woon serment ak si turu peuple bi ak si texte yi nga tënku si. je pense que mun du ñu ne erreur judiciaire dina am mais dina néew. Hmm. mais le Sénégal aussi du xam que ni y a deux Sénégal dina xam benn Sénégal moom ñëpp a yem ci kanam yoon. Hmm. yooyu la war a gën a taxaw texte yi baax na yeneen réforme yi baax na. mais li gën a ëpp solo mooy l' indépendance de la justice l' indépendance de la justice nag nit ki ko incarné ñoo ko mën a dëggal ñoo ko mën a saxal mooy ñu moytu par parlo ñoom fay ñu leen par weer parti politique fayu leen euh, une personne tierce personne keneen keneen fayu leen peuple bi mm-hmm. moo leen di fay mm-hmm. donc il doit rendre justice ci turu peuple bi euh, donc loolu mooy li gën a ëpp solo donc tey ndaje bi euh, jàpp nga ni bon xëy na yow am na loo xamante ne dund nga ci wàllu justice am Euh, loo xamante ni da euh, nga vivre parce que dem nga fi euh, ci à deux reprises prison mhm. yoo xamante ni dafa tegaloo sax sorantewul mhm. mais tey bu fekkoon peut être am nga loo xamante ne ay recommandation la yoo xamante yaa ngi koy joxe ngir ñu gën ko mën a bàyyi xel par ak li nga jot vivre lan lay doon ci fan lañu war a gën a mën a dul baaraam par rapport ak yow détention yi nga xam jot nga ko waaw bu fekkee sama cas personnel la moom hmm. dañuy delluwaat rek ci l'indépendance ingérence bi rendre la justice au nom du peuple hmm. bu ko defee dootu jàppale ñi gratuitement parce que la prison c'est très conseil d'un tel wala d'un tel nettali xuloo moom je pense que xuloo lay doon on est là pour trouver des solutions mais li ñu jot a dund aussi daf ñuy permettre ñu basé wu ci ñu inspiré wu ci xam ne bala nga yóbbu te nit prison day fekk mu nekk vraiment hors la loi nga mën ko yóbbu mais mënatoo ko yóbbu parce que dafa wax xalaatam mënatoo ko yóbbu parce que dafa far fi mu bëgg a far il faut ñu régler problème yooyu noonu bu loolu weesoo nag ah, mënuma ñàkk a plaidel ñu nekk ci kaso yi parce que condition de détention yi c'est inhumain mm-hmm. humanisme moo bu fort la. Mhm. dañu war a xam ne dafa nekk dañuy bàyyi ma même ñi.